Malik Imam ak Cheikh Pandé kon kilifa yi toog ci jotaay bi yëpp ñu ngi leen nuyu képp kenn seen seen tur ak seen jëm di nuyu zakiri di la ñaal yàlla yàlla wére seen baat waaye itam yokk suñ mbëggeel si bàyyi daa iman seen tëbb yàlla bu mu dagg di nuyu parrain yi ak marraine yi euh, di nuyu marraine sama jigéen Seyda Fatima di ko ndokkeel si tuddee gi ak sama jigéen sama bàjjen Seyda Xadijatu Njaay xam naa sa kàddu moo koy wax <laughs> ndax waroon nga wax ñu ngi lay gërëm di la sant moom Khadija mu ngi gërëm di la sant nee na di la ñaanal yàlla jotaay bi yal na ko yàlla saxal defal nga ko teraanga yal na yàlla fay la teraanga googu te amaan na amul dara waaye nag mbaax rek moo tax nga tuddee ko bis bi yal na yàlla barkeel bis bi di nuyu suñu yaay di ko gërëm ndax mbaax gi yëpp moom la ni ko nit ñi waxee eh, amaan na bu moom bëggoon def lii mu aaye ko boobaa du ko mën waaye nag nangul ngi nangul ci yoon bi moo tax lépp lu bëgg lépp lu mu bëgg a def rek dana ko may na ko ndigal na ko def ko te du si am benn ngant ñu noonu la ñu ay magam yu jigéen ñoom ndeyesu ñoom gindaa ak Seyda Khadija di ko ndokkeel moom tamit ci marine bi ñu ko marine xam naa guddi na dañuy def benn tarxis bu ndaw rek wutu fii suñu sëriñ Cheikh Baye Niass mi nga xam ne moo waroon a toog fii nekk sëriñ yu moomoo moo ko yar ci yàlla waroon a si waaye ne dafa pan ci yooni Kaolack bi kon moom tamit ñu ngi sàkku ci mbooloo mi ko yàlla ndax mbooloo ndaw yi ngeen gis fii ñu bari moo leen tarbiya moo leen yar yàlla ba léegi ñoom ñi ànd ak moom kon nag bu teewul fii rek ngant dëgg-dëgg moo tax teewul fi ñu koy ñaanal yàlla mbëggeelu baay bi sax ak wér ak gudd fan ak bala maa waxtaan rek ndax waxtaan bu kii lay def rek damay nuyu Momo di ko sant di ko gërëm di seedeel mbooloo mi ne ñu ñaanal ñu yàlla ànd bi yàlla saxal ko. waaye itam te barkeel ko sànq ba may ñëw si yoon bi maa ngi fàttaliku ñaata at lañ def ci Kàndoo yaakaar naa 2013 lañ dalee ànd ba léegi kon fukk at la ci ren sa jotaay bi yàgg nga ko bëgg a def ñetti at ci ginnaaw yaa ngi ko bëggoon a def yàlla sottaliku ba ren la ko yàlla sottal te ni nga ko waxee dëgg la biñ dalee ànd ba léegi wax dëgg yàlla Dakar mun naa wax ne yow laa fi ñu ko xam ci mbokk taalibe boo xam ne jëflante naa moom ci wàllu taalibe bi ginnaaw bi ñu xamante ne laa xam waa waaye xam di commencé xam nit ñi benn par benn ba li yàlla dogal tey kon mën naa wax yaay sama bunt si Dakar te boobu ba léegi ànd baa ngi rafet ci jukko ci lu ma xewale nga taxaw ci ma xewale ma taxaw ci amatul sax xewale waaye entre mag ak rek lay nekk rek ndax ñoo bokk famille ñi nga waxee ne. lépp luy xew suma kër da nga ko yëg man tamit kër gi ginnaaw bi paa bi dëddun ba ni mu génnee àddina amul dara lu fi xew loo xam ne duwul ne man la ci jiital loolu nekk teraanga la boo xam ne bu ànd bi dëgguwutoon loolu yëpp du feeñ ñu ngi lay ñaan yàlla yal na yàlla yokk sama gër ci bàyyi yàlla def la dëgg dëgg dëgg taalibe bàyyi waaye itam lépp loo bëgg a liggéeyal bàyyi ci faydu bi yàlla yàlla na ko yàlla yombal ndax lii encouragement bu rëy la ci ndaw ñi man li ma toog fii yëpp maanaam lan la war a waxtaan na <laughs> moom moo def maa bett Cheikh Tidiane Ndiaye naa ma gàttal dañuy ñibbi suñu paree dañuy dañuy xuloo yow ndax yéen mënoo leen boo leen di zikkare ñu leen déglu ñun ñun tamit bu ñuy waxtaan doo leen déglu loolu mun a nekk waaw moom moo nag bisa man bu ma neexoon wax ba fajar nit ngi di ñu wax parce que <laughs> parce que moom day xam ne kii wax nii ngir yàlla lay waxee jëmee ci man waaye loolu ñu ngi leen koy mëccalikuloo bu baax a baax parce que seeni soppe ñoo toog te boo leen zikkaree dix-huit heures ba vingt-trois heures ni ngi déglu leen kay bii ni ngi di waxtaan dix minutes wala quinze minutes wax dëgg yàlla ngeen mu ñëw déglu nag kon ñu ngi gërëm ñu leen di sant Euh, di wax ne lim def nii nii man daf dafa dafa am fu ma yóbbu damaa gis ndaw ñi léegi ñëpp dañuy def jotaay yu mel nii te bu njëkk benn ndaw xalaatu ko woon bu njëkk boo daan miin jàkk yi sax dañ naan la suba ngay dee man xam naa koo xam ne dëkkam ndax Saalum gi nekk nii ñoom baaxoo woon julli juma loolu sax si débat bi la bokk li ñu ne jërëjëfee Baye Niass ma tarxis dugg foofu jërëjëfee Baye tey boo ko joxoon kenn tem na ko waxtaan si sama kalaas gi dañuy dem gëstu bàyyi Angleterre bàyyi nangam jaru ko dafay sor yi gis nga bàyyi li lim doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bari bi ñuy wax di ko yëgal ci ay maqaama nañ gën a wàcc dafa am yu suufe yoo xam ne suufewu sax waaye dafa sew ba nit ñi duñ ci bàyyi xel li bàyyi dundalaatee diina gi Cheikh Tidiane wax na sànq na ko chamsu diini bàyyi yaay gentu diina gi mhm. Saalum fii gëmuñ woon jullit àjjuma gëmuñ ko woon seen dëkk yi daawoon am juma am na benn mag bu ma nettali ne dëkkam korek bi mu amee jumaa dafa tuxulu dem dëkk beneen dëkk ngir lan mu ne jumaa dafa diis te xadis ñoo ne yéen sallallahu alayhi wasallam wax ne ku toog julliwoo ajjuma ba mu maj ñetti ajjuma yaa ngi dégg yàlla beneen julli boo mënta julli ci ginnaaw ajjuma yooyu yëpp yàlla du ko nangul feneen fi mu ne bu nekkee dëkk dafa am lu ëpp juróom fukk nit te amul jumaa nañ dégaloo ñoom seen biir ut benn pàkk taxaw fa dafa julli ante mënuñ tabax waaye nag bu nekkee ne yow jumaa gi la tabaxal sa biir dëkk sax dañ na doo fa julli ndax jumaa dafa diis si yow te loolu Baay Ñas radiyallaahu anhu moo ko dekkalaat Saalum moo tax ñu naan Saalum Saalum bi buñ toppee nañ ko def tem di ko waxtaanee li bàyyi dekkil Saalum dafa bari bokk na ci jumaa yi nga xam ne amoo fa woon gëmuñ fa woon waaye bàyyi moo ñëw tabax jumaa gu mag goo xam ne ñu ngi koy julli Medina Baay ginnaaw taalibe yi commencé tarbiyu ñeneen nit ñi seen soog a am fitu di tabax jumaa seen dëkk yi ak taaliba yi nga xam ne ñu ànd ak Cheikh Ibrahim seen mbëggeel googu. ñaareel bi itam jullit tàkkusaan ñoom gëmuñ ko woon surtout noddu tàkkusaan dañoo waxoon ne ku noddu tàkkusaan da ngay dee am na ki ñuy wax Issa Diallo moo njëkk a noddu seen dëkk tàkkusaan fu ñu naan la bi mu fa noddee tàkkusaan man ñëpp génn waa ji tey lay dee balaa timis dafay dee te lu tax mu noddu tàkkusaan mooy tarbiya na ba pare rek gis na dara nekk fu yàlla lu tax dëkk bi naan duñ noddu tàkkusaan bi tàkkusaan jotee mu dem jël rajo jàkk gi rek nodd bi mu noddee yaayam yenn loxo yi di yuuxu ne doom ji balaa timis dafay dee kon taalee baay la nodd tàkkusaan bi waa dëkk boobu commencé nodd tàkkusaan baay a tax ndax baay moo defar ndaw lu am fit dégg nga ku mel ni bilaal ci dëggoom ak ci xam yàllaam mu dem noddu tàkkusaan seen dëkk mi Isa si la waa dëkk bi commencé noddu tàkkusaan dëkk boobu noonu chaque seen gàmm man dama fay teew te ñemewuñu noddu tàkkusaan boo waxee nga ne ku noddu tàkkusaan da ngay dee kon baye dekkal fofu nonu no takusan loolu dekkal dina la ñaaral bi itam wala dalina amin ñun ñu xamne ne bu ko gaay daan wax ci jakkay bu boo amin rek dóor ni sa loxo mbag tër mag ñu bari damm nañ seen loxo ci talay baye ngir baye mo ne imam bu waxe wala dalin amin gi maamun bi di wax sunna la bu nekké gëmoo baye dama nga lire téere mu wata imam malik koku dañ ko nangul sunna boba mag ñi buñ daan wax amin buñ waxe amin rek nga gis ñu dóol leen wala ñu damm seen loxo si lañ ñëwé tawal ta na ko dëgg dëgg mir mi métti na bàyyi leen feetu bi lu métti métti bu ñëpp demoon ci yéen sayda ya fajjaay mi nga xam ne yaay sing Mamoud ak may rafal ñum duñ dem mukk kon bobu feetu métti won na ki dekkal amin ci juma ci jakkay moy Cheikh Ibrahim waye tam ki dekkal amin ci xol yi itam moy Cheikh Ibrahim radiallahu anhu kon benn bay ci baye dafa wax ak yoon ci al Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne jamiu shuyunul khalqi min sha'ni faylaqi فعيني وكلكلي وطرسي والأخلاقي كلامي دنغ ونفسي آه،, أه لذكره بذكر رسول الله أعلو وأرتخي نو نيب اي نو في توك بن بيتو لا ني وقتان تك ني جانغيتي ناخ بو تربيا بري باين كفيتي بصحابي في طريق انا فكلهم بالجذب نال منا ولم يكن الاقطاب قبلي دنغ مثلما للعبد من فيد يرو لولو اي جانغيل sama talibé bi ñi nga xamné ay ay ko lay won jitu fi dan am ay talibé ñi leen teunkel ci nawafil guddi pour ñi jaamu yàlla ngir yegg ci yàlla ñi ngi leen jox alquran ñu jàng ngir yegg ci yàlla bay ñu ne choono yoy yëpp lamal nako sama talibé bi ñu ko ci lan mëna a biri jës bu ci jës bu tarxis lay nek rek ñu bàyyi xel moy kafetu bi sahabi fi tariqa ana fa kulluhum sama talibé yëpp bil bi naa la mun a ñoom ñëpp jot nañ seen càkkutéef mais fan lañ ko jotee si gis bi nga gis ne xutbu yu mag yëpp daan nañ ànd ak ci ay seen moroomu xutbu wala taalibe yu bëri daan nañ ànd ak ay sëriñ mais xamuñ fan lañ war a jotee seen càkkutéef loolu problème la woon bu njëkk amul benn sëriñ boo ñëw jàpp danaa la waaw nañ ànd ngir yàlla rek boo yàggee si yoon bi rek da nga yegg si yàlla waaye garanti ne boo defee nangam yegg si yàlla loolu amutoon bu njëkk bàyyee ko fi indi mu ne sama taalibe yëpp bu ñu sooboo si yoonu tarbiya danañ am seen càkkutéef سلنتي سجزبو لينكوي امي كن بابيات باش كانون فاصغر اتباعي اني لفناء كي جنس توتي سما توبو امنا جيخش يالا ليك بو نيك دا نا نيو تربيو يغشي يالا باينا لا امو فناو ماي جزبو nga am تا موي فتحو فتح الاكبر موي اوبين نك لا بونتو بي رك واي دغ دغ خماغو لي نيك سي بير كيرغي خماغو دوس بي خماغو دارا سي كيرغي باينا لا من سخلو مكو كو واتو سوبو نياريل بوكو mu dem ba ci mujjantali bayti bi ne fa asgaru atbaai unilu fanaa ki gën a tuus sama taalibe sama topp am na ak jeex ci yàlla jeex ci yàlla nag bàyyi ne koy amee ginnaaw boo doxee maraati bi dégg xaqatu muhammad ya ahmad ya ibrahim ya banaasooti ya nga dellu zaatu mu ne nag la nit ki di amee fannaawu maarifatu billaahi bii ñuy wax li naa benn lettre cheikh ibrahim bàyyi mu ne tarbiyul nga xam yàlla si jës bu soo am fannaawu am istiqaama am tawba am ixlaas da nga romb maratib yooyu yëpp bàyyi soog a indi maarifatu avant li lim amuñ sax pour ci amuñ ci bay am ci ne la am naa maarifatu kon ñun ay suñ kuris yi nga lañ nañ fi na ñu am xam yàlla yàlla xam yàlla ci lettre bi boobaa ay xiñaan ak soxorante géeg yooyu yëpp du am parce que am nga maarifatu billahi kon yegg ci yàlla mayu la maarifatu billahi dox séeru dégg nga am fanaaw ci biir yàlla mayu la maarifatu billahi waaye nag ginnaaw boo amee tawbatu am mutuma inna am istiqaama am ixlaas ginnaaw boo robi maqaamu yooyu yëpp bàyyi mu ne si laa leen soog a nangul ne am ngeen maarifatu billahi kon taalibe bàyyi ñu néew ñoo ci am maarifatu billahi te koo ci laal mu ne la man am naa maarifatu billahi soo ko waxee amoo maarifatu day mer di xuloog yow kon nañ doxaat tambali wat dox bu bes yaangi deg zikrat dam seru wat top suñu yoon muqaddami boba ba nga ñak ité nax Baye daf ne ñu bëre bëri mën nañ jot maqam bu len neex pe yàlla bi waye gàtt ité rek mo len ko téré jot ta bi mu waxee ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nubuwatu fatnama son pap ba mu koy firi daf ne nubuwa fatu ko de yegg na ci maqamu nubuwa waye nak tur yi moo ko faat ndax mënatul nekk yonentu di ootee di jubal nit ñi ci diine gi taxawee maqaamu turu yonent bi waaye nag maqaama nubuwatu moom da ciy toog moo tax taalee baa yëpp ku séeru ba sa séeru dëgg-dëgg di nga xam ne booy am 40 ans 45 ans di nga dugg toog ci maqaamu nubuwa ñi ci yegg xam ne ñi ci yeggul xam ne waaye li ñuy yegg la te lu ñuy toog la waaye nag tur bi dalay faat lan moo la ci yeggale mooy ittee boo gàntigloo itte nag doo yegg kon nag sama mbokku ndaw ñi maa la ñu mëtt ni ko loolu programme yi neex na ñiy dem baax na lool waaye nañ dëppaat am nag programme yi di nafaraat suñ jukki bi suñ jukki bi mooy lan mooy di continuer di seyru pour suñu yàlla gën a leer maqaama yi ñoo ko moom ñun lay xaar yaa ngi dégg ñoo ci war a yéeg tawetu maqaamaatil dégg nga rijaalu kulli haala bàyyi waxoon lamal naa leen moo leen maqaama góor yàlla yi kon nag maqaama yooyu yëpp yow lay xaar te bàyyi jox na la isne lamal naa la ko kon bul gàttañlu jéego boo teg rek am na beneen jéego bi ñëw ci kanam te mbir mi duwul luy jeex kon nag bu boobaa da nga am maarifatu billaahi boo xam ne day ànd ak sell gu ma sëkk moo sama miri miri miri mbindeef yeb yàlla mu ko jox yonent yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy mooy aji fasaaxa bàyyi lim fa ayni wa kalkali wa tirsi wa laxlaqi sama bët da fay liggéeyal yonent bi comme li nga wax nan suñ lépp jox nañ ko Cheikh Ibrahim fa la wax na ne fa kulli kima masulum bi kulli muhammadin sama lépp moo soxla woo lépp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii nag da koo def ay dagg-dagg ne suma bët bi day xidmaal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lan ci xool ay téere di ko liir di tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lan waaye di xool jaamu yàlla yi di leen di gis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam si jaamu yàlla yi te loolu séeru la boo xam ñu bëri yeggaguñ foofu am na ñoo dañ naan xam nañu xaqatu muhammad rek doyal nañ toog te Seyda Ali Mayra Fall sëñ Daa Ousmane Ndiaye mag yi baax yi àndaloon ak Baye defuñ nonu te Baye ko wane ala alaa layta shi'ri al hafuz bi ru'yati muhayyan rasulullah dhalika bi khati nakh bis dina jot madam ba gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak sama bëti bopp yi bokut ak gis ak maanaa waye mun nañu wax ne gis ak hissi lay ñaan fofu noonu dem ba gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak sama beuti bop yi baxna nga dem tarbiyu xam yàlla séeru xam deug deug maanaa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la sëriñ Mouhamed Bousiri waxone ba baye di waxne bu lañu sonal barke dem mo ñaay yene ngi yooxu nañ gis ngeen Isa te ñun waxtu nek ñu gis yunus yàlla mohammed sallallahu alayhi wasallam mo ne Mouhamed Bousiri serigne dafa waxone suma toge digeunte xef ak xep gis mu yunus yàlla mohammed sallallahu alayhi wasallam nek ma faar ci diwanu sufyan ki ne di waliw wi waye yi diwanu khutbu yi waye ñun taale baye chaque jour mo ko buñ toge digeunte xef ak xep gis ngeen yunus yàlla mohammed sallallahu alayhi wasallam nek dag suñ kurus loolu gis gu maana yi la waaye nag beneen gis gi mooy lan mooy la sayda Ali waxoon bàyyi na ko bi ko bàyyi wooyee dañoo ñëw ci bàyyi na ko ah kon yonent bi da koy gis gisam nii nii nii nii mu toog nga toog mu ne leen waaw bu leen fàtt na bàyyi ne moo waxoon ne dégg nga ayatu rasulullahi nassa bi annani safin lahu fil kainaati mu xalisu toogoo Cheikh Pak bi fay France ne ko ndax xam nga ki fi jugee nii kan la mu ne ko kan la ku sori yére bu rouge mu ne ko waaw mu ne ko xaw ma kan la de bàyyi na ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la paaka bi fay daw pour xoole ko bàyyi na ko kaay dem na kon xam na daan na ko gis gis ak zaaxiran léegi nag waxtu am na xutbu yoo xam ne itam tolloon nañ ci jamonoy bàyyi waxtu bu soxla soxlaa yonent bi mu teew seen kanam ndax ñun ndaw ñi tey yegg nañ ci maqaama boobu te bul wax ne ndaw laa de Seyda Ali Sebe mi ànd ak bàyyi ndaw la woon sëñ daa Ousmane Ndiaye 39 ans la génne àdduna ndaw la woon itte moo leen may ñuy am maqaama boobu noonu moo tax bàyyi na ndax bis dina jot ma gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sama bëti bopp yi du gis ak gént waye mu toog yow comme ni Mouhamed li toog yow nga wax ko sa soxla mu yobul lako ko fayal la ko moo tax bàyyi ko ci yoon ci yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wasallam mu jotali mako ci yàlla de nga waqaf ala babil karim Mouhamadin de nga waqaf azim qalbi ayrana de nga mukumadi laala rasulullahi yanhi shikayati na ko yegge sama tawat li ma wallahu inni nahwu de nga de nga kullu maqsadi legi nak bàyyi sama beud yi da fay khidma li yoon ci yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wasallam sallam kon ñun nañ gorgolu di gis bàyyi suñu bëtu zaahir yi waaye di ko gis itam gis ak xol ñu fexe am ñaari maqaam yëpp bàyyi ne wa këlkëli sama jëmm gi dafay rëg-rëgloo di liggéeyal yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xam nañ na bàyyi wax ne daifun xalilun shaibun mutaxamisun li yansura diina لا يرجع قتالا دوما نمو خيح دو تخ lu باسكو لي ne parce que li ana nabi laa ci mi dahra ma qada balaa sadda udwaanan wa ييب دوكو léegi nag بي دوكو ليغيال Pape Maye Niass maa ngi déglu barke dem benn waxtaanam boo xam ne nu mu koy waxee ci façon bi mu koy waxee dalay xàlloo mu ne bi mu nekkee ndaw bàyyi julli gi jumaa si waxtu juróomi alquran bi ñuy teg ci jumaa mid na gi takkusaan bàyyi génnee këram di jëm ci jumaa ji mu ne aay yaa ngi wàcc ci kaw jimmi alquran yi dox ci kaw suuf mu ne bàyyi ngi bàggante ngay firi aay yi ci jëmm ji bàggante jëmm jooju noonu moo doon réglé loo di liggéey yonent bi ci jaam yi di yëkkati lim am di leen jox bu gàmmu jotee taalibe bi nga ganam nga boo ñëwee gàmm ba pare bàyyi ko ci yërëm may la may la paas nga dem ba léegi sunna la Medina waaye tamit nit am problème wax ko ba benn waaye ñëw na di nax bàyyi si ay soxlaam bàyyi na ah moom da nee na man lay nax yée yaay man la sees te sees ma te ñeent jàmmul la fi ñëwoon yaa ngi dégg jaar fi ñu wax ma ko mu ñëw wax ma soxlaam du ne damaa am soxla bi rek mu fayee ko ko mu dem waaye ku ma nax si yonent bi ma jël léegi nag kooku liggéeyal na yonent sallallahu alayhi wasallam itam ci doom yi doom yëpp jël na leen tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi mu ne jëmm jógi nag mooy liggéeyal yonent bi ba far màgget mu ne indil leen mayet may sukkandiku di julli ji doyut mu ne rojo jumaa gi nag ma xaccal benn baax bi tegal ma ko sama buntu nag may déglu alxuraan gi ndax mënatul génn waaye mu dem ba nga xam ne yaa ngi dégg matal na mbiri zaahiram matal mbiri baatinam tàggatoo yooni kooséem ba ne maa rafal giite ma mu giite ko mu ne ko nag mbir maa ngi noonu liggéey bi seen loxo la nekk bi mu delloo di suwaatul ba tey waaye nag fa surati ibrahima tabqa tadakura moo tax suure yi waxtu boo ko xoolee rek mu fàttali la meloog dëgg-dëgg jëmm jéegi noonu bàyyi ne jëmm ji day liggéeyal yonent bi kon boo nekkee ndaw di liggéeyal bàyyi képp ku lay inkaar naan la dafa teel dafa nangam bul ko déglu bàyyi nga sa deen laawa anu bi mu amee juróomi at la dalee liggéeyal Maalaaji Abdoulaye ba juróom benn la at ba juróom ñaari at ba ni mu génnee àddina mu ngi liggéeyal Maalaaji ndax dañoo mës a dégg Maalaaji ne ko teel na bàyyil مستعم سيدنا علي كرب كو يونس محمد صلى الله عليه وسلم ديوني شي خربي يعني ديغ با حديث بي واتي ني جبل بن نيت مو غن نغا دونال ادنا لو شي بيرم لان يهدي بك رجلا ديغ خير من من حمر النعام نيات الله امون قلب دولة امو دون 30 يعني ديغ واي تيرو جيمم جي جاينت نكو اك يونس محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نيات الله نكو جوخي باي ñu ne ñetti ñu ne ñeenti at waaye ñu ne bi bàyyam dee la nga jox bàyyi radiyallahu anhu si ndigalu maalaaji korog la jaayanteeg bàyyi di ko liggéeyal ba ñu génnee àddina may rafal tamit kadaalika na ko noonu kon ñun ñëpp ay ndaw lañu woon kon ñun buñ ñu yedd si xale nga bu liggéeyal bàyyi buñ déglu loolu lii ñoo ko war a def lu dul lii ñoo ko war a def waaye nag nañ ko teg ci ñub ak dëggu yaa ngi dégg ak sellal bañ koo teg ci puukarewu buñ pokoro wo jami waye jami nañ ñi pokoro wo suñ jëf ci Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu bayni wo trisi sama keneen yi itam fay liggéey yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fu yima yor yeb dama koy bind di tagg yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko attaa amul xam-xam boo ko sax mu ne ma jël daxa gi sotti ko ci kaw kayit bi ñuulal ko rek sànni kayit yi ngir amé ci yéen tagg yonent bi ta tagg nako ko ba yonent na ko xataa dégg nga dégg dégg nga xabibi anshud an nawarum wa anshud an nawarum wa anshud an nawarum yow sama soppe taggal nga sàkku taggal nga sàkku taggal nga sàkku te bàyyi itam may na ma xam boobu gaayam yi nga xam ne waxtu buñ taggee baay rek danañ yëg mbëggeel bu dolleeku si ñoom waaye itam foo toog si ñoom loo feebar feebar di nga wér bàyyi na kaye yooyu itam dafay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kaye itam déggee si xaalisam xaalisam dafay liggéeyal yonent bi ba leb na banque jox ay serigne yo xam ño taxawon ci bank ba ne bu len lebal bay bay lepp alal gi jox len ko ngir yunus yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye khalisam da fay liggéey yunus sallallahu alaihi wasallam ba nga xam waxtu bi nga ko waxan ne amna am yàlla ba ñëw kawlak ka o ci xuddu bay set na ko ki nga xam dom doomu yàlla dom wëliwu yàlla la bay set na image ba tax nak mu jaar seen nak bu bëgguñ ko ñu oo suba di ngi yedd ci yenn yi yaa ngi dégg waaye bàyyi seeti na len la la dan yobu xarmu mu weex ak khalis dem jox la xaalis pare jox la xar mu weex am na ci koo xam ne sax bi ko bàyyi joxee xaalis bi jëlu ko da koo gedd bi bàyyi ñëwee taxaw buntu négam fëgg nuyoo fayu ko soxnaam na ko Ibrahima Niass de moo la seet mu ne ko bàyyi ko foofu noonu bàyyi taxaw lu yàgg soxnaam ne ko bismillah ndax soxnaam xarit bàyyi la woon bi mu ubbee buntu bi bàyyi ñëw siis bi bàyyi war a toog dafa pënn soxna bi su na koo fomp mu aaye ko ko bàyyi ñëw toog ci siis bu pënn bi waxtaan na moom faalewu ko bi bàyyi toogee ay minute yëkkati enveloppe bi ne ko am man damaa ñëwoon dégg ni ñëw nga kaw rek ma ñëw ziyaare si la xar maa ngi ñële si buntu bi itam maa la ko jox ngir àjjee Cheikhu Tidiane ndax kooku saxaaba Cheikhu Tidiane la woon tontu lu bàyyi ba fi may waxee yéen nii bàyyi jug génn mu ñu ànd ak taalibu magam ba maa Fall bi mu génne na ko bul ko def dara yaa ngi noonu waaye bu ko def dara kooku noonu bi mu dee am na li nga ko def am na fay njaar ak moom xam ne ne yàqu na bu yàgg te la moo ko may mooy da nga dundale alalam si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gistoon mbindeef moomu noonu koy sa xaalis mu lay dàq di la ñàkk uyu دق دق دنگ بين ولا خلقي يتم سما سما دخا دفاي ليغيري نتي يالله محمد صلى الله عليه وسلم دخا جي بولا نيه في دكو دخا ظاهر موي سامب دي بن وايي نك دخا خل مو اوب دوله دخا ظاهر خم خم بيم يور داكاي ليغيل نتي يالله محمد صلى الله عليه وسلم مولو فم تيو رك غاي داغي توب كو رك بيم دامي يدني وما واين برهام وما برهام حتى فنوا في حبي وهامو لن موك يوبي جوك توكي دي جوبل نيغي تي يالله fekk fa mooloo bu teew mënul wàcc demaat faneen mënul wàcc mu laaj boppam delloo ci delloowaay bi nag mooy yow sama sëriñ Cheikhu Tijaani man may kan moo tax taalibe bàyyi itam teraanga boo mun mënta am yow muqaddam bi yow sëriñ bi koo ta doon loolu lépp loo mënta am rek te delloo ko ci Baay ku ñàkku ngor nga amoo ngor ba pare toppoo li Baay jàngale parce que li ko li mu am yëpp delloo na ko Cheikhu Tijaani faydu bi déglu leen benn misaal faydu bi ñu nekk nii Baay dana faydu Tijaani la lu wér fee du ci yaa ñi la de waaye bàyyi tamit nax nañu feneen daf ne waa ji ñaari kaase gi nii fees nañ beneen bi amul dara beneen bi mooy Cheikh Ibrahim leer rek moo ci nekk bàyyi ne ko jëlal meew mu nekk ci kaas bi nga sotti ko ci potinaal bi nga jël ndox mu nekkaat feet bi nga sotti ko ci potinaal bi kon Cheikhu Tiyaani fekk ji na yonent Cheikh yonent bi fekk ji na mu nekk benn pot bu mag bàyyi ne pot bu mag boobu noonu man la muy benn benn si Cheikhu Tiyaani bëgg ko yeb mu ne ko sa maqaama bi rey sa baay tàngoor boobu noonu te Cheikhu Tiyaani daan na tàng ba daan ñu ko daan utal benn këll goo xam ne wala genro malka boo xam ne di si daan dugg ngir sedd te bu duggaan sëriñ bi moo nettali mu ne day mel ni jigéen bi waas ci na mu daf dafay cas noonu la yaramu Cheikhu Tiyaani dafay cas ngir rek tàngoor bàyyi na tàngoor boobu noonu rey Cheikhu Tiyaani ba mu koy rey maqaama bu rey Cheikhu Tiyaani ba may am juróom-ñaari laa ci ah léegi nag bu nekk ba ma am juróom-ñaari at la ci toog ba pare ngir kaas benn jëlal doole Cheikhu Tidiane doole yonent bi nga dugal ko si benn kaas bi nga soog koo am moom bàyyi ah kon kii borom faydu bi yaa ngi dégg waaye nag terewul loolu yëpp për na ko ne Cheikhu Tidiane la ah lu tax Cheikh nekk sama waasita waaye waxee ko wax boo xam ne waxu ko reetaanu la toog ba ah, lu tax Cheikh Tidiane nekk sama waasita déglu ngeen wax ji lu tax mu wax ko mais ak ni ko laajee laaj bu doy war la ko bàyyiwul laaj da koo laaj laaj ak ku ku ku xamul lu muy laaj wala laaj ak ku xam li muy laaj pare boole ko ay reetaan waaye taalibe bi lay jàngal lépp loo mun ci am si yàlla rek delloo ko sa sëriñ léeg-léeg taalibe dina am lu sëriñam amun mu jàpp ne sëriñam matut fekk na si tëbbëg sëriñ bi nga ko amee bàyyi li mu am yëpp Cheikhu Tiyaani feeñtoon Cheikhu Tiyaani waaye si tëbbëg Cheikhu Tiyaani la ko amee waaye taxaw delloo na mbir mi sa mattal ga kon nañ delloo mbir mi Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ba liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ni xilaam yi xalima gi itam xalima gi nga xam ne mooy baatu di feeñal tag yi ni ko France di waxe pétarante xom xom xom pétarante xom de nga am ni ko France di waxe nit di wax nga koy jotali bàyyi mu ne xalima gog nga xamne moy genné génnee bi nek sama bopp bi yonent si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam lay liggéeyal kon nak yow lépp lo am ci xam-xam delloo ko Cheikh Ibrahim lépp lo am ci ñub delloo ko Cheikh Ibrahim lépp lo am ci max delloo ko Cheikh Ibrahim mota muhammad ne dañuy def journée jërëjëfee bay radiyallahu anhu bàyyi ne wa nif sii déet wa laxlaqi mooy firi sama làmmeñ wa nif sii mooy firi sama daxa damaa jum foofu wa laxlaqi mooy firi sama làmmeñ làmmeñ bi itam dafay liggéeyal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam làmmeñ bi moo tax benn waaye wéy na bàyyi na ko sa làmmeñ bi mu sa yëngatu si lu dul ndigalal xutb bi muy Cheikhu Tiyaani mu dem ba xaar jàpp mu ne ko sa làmmeñ bi mu tul yëngatu lu dul si tëbbëg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne làmmeñ bi waxtu bi wax rek ci ñub lay wax Aliou Chab Ndaw ànd nañ si otoom di gerteel bu ne man daal mbir mi jaaxal na man Dakar ba Kaolack ñi déglu gàmmu bàyyi te mënut jeex Dakar ba Kaolack bàyyi mawlit bàyyi min qabliha bi mu paree waxtaan ak taalibe yi soog a siira bi mu siira pare dem jàng dégg nga burdu bi pare jàng alquran tëj kaamil bi waxtaan fegal tuubal nit ñi soog leen a yeewi naari matière yoo xam wala juróom-ñaari ñu ko waxee waay dimbal leen ma si mot français yi naari point yoo xam ne da koo def ci benn guddi te guddi gi jeexut mu ngi toog ba 10 heures soog a jóg ana kan moo ko mun ci ñun kenn mënu ko radiallahu anhu moo tax mu ne làmmañ waxtu bu yëngatoo rek yéen sallallahu alayhi wa sallam lay tagg kon nag ñun moo tax ñun tamit nañ muslu suñu làmmañ bi yëngatu ci lu dul Cheikh Ibrahim benn dara su ma fay jàll mooy bu nekkee ne taaliba laa sama làmmañ bi du yëngatu lu dul Baay Ñas kon ndax war naa oo sama mbokk taalibe di xas sama mbokkam taalibe warta mën a nekk ndax war naa dem si benn sëriñ yàq sama mbokk taalibe doxal ko mu joge fam dëkk baye ko wax ci cassette mu ne waliyu yàlla dina ñëw dëkk ci ben dëkk xale bu ndaw ñëw dëkk ak mom mu xol xale bi rek xamne ki bu magge don dara mu ne ko jug fi jug fi fii baaxul nangama nangam mu ne ko ko kooku bu bu baxut waye ki bax moy ki nga xamne ne da gis xale ba pare nako encourager ko yekati lim am di ko jox ba mag ci kanamam mu dundalaat koñam bobu noonu waji de dee xale bobu non nekkon ci koñ bi dekkalaat koñ bi mi yëpp tew ci loxom baye mu ne ko ko moy waliyu yàlla bu bax wa léegi nak bu nekkene yow talew bàyyi nga sa làmmiñ bu waxtu nekk yaa ngi xas sa moroom muqaddam yow nekkoo muqaddam waaye muqayyam nga bu nekkee taalibe baay nga sa waxtu nekk nga xas sama comme taalibe baay nekkoo taalibe baay yaa ootoo ne moom laa waaye duhoo ko lu ñu musal si loolu nag mooy suñu bët yi ñu ciy gis bàyyi bu Abib Diallo teewee bàyyi la su Momo teewee bàyyi la bu Ousmane Ndiaye teewee bàyyi la bu Baba Dia sa teewee bàyyi la ñoom ñëpp ku teew rek bàyyi la si yow moo tax bàyyi ngay jëflanteel moo tax bàyyi ne du ma jum si yonent bi ñu ne ko lu tax mu ne parce que ku teew ci man rek yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bay mu ne xalima gi itam dafay liggéeyal yonent bi mu soog it nag dañuy liggéeyal yonent sallallahu alayhi wa sallam bi zikri rasulullahi si tudd googu ma koy tudd di ko fàttaliku aalu laay kawee waaye waa artaqi si laay yëkkatikoo bàyyi mu ne liggéey gi ma lim ni yëpp nag moo may kaweel man bàyyi te itam moo may yëkkati te ñun loolu rek lañ bëgg kaweeg yëkkatiku kon nag suñ ko bëggee waxtaan bàyyi noonu jeex na suñ ko bëggee rek mooy alu wa artaqi joxol sa bët yi bàyyi joxal sa làmmañ bi bàyyi joxol sa tànk yi bàyyi joxal sa bopp bi bàyyi joxal sa jëmm ji bàyyi joxal lépp Cheikh Ibrahim na ko fa dégg nga dégg nga fa huwa kullu minhul kullu batnan wa zahiran moom de ku gore la moom bàyyi ku gore la ndax toog na di tagg yonent sallallahu alayhi wa sallam ne yaa ngi dégg li li tati bi basirin wa jilban kulli unatin wa saqi rijaali fi lxaybi wa mashhadi xola kooku koosi dara xewagu taaliba yi sa ñëwagut bàyyi na yonent bi même bu nekkee deena bañ ne Ibrahima Niass deena saxal di tagg samay góor sama faddu ak sama teew kooku gore la waaye gore na ba tagg taalibe mi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko ñaan ko yàlla nag ma tegli sama njàqare man ak samay njaboot waaye itam ak samay soppe sopp yooyu nag yow yonent bi ñu dëggu leen benn ñu sell leen waaye itam ñu am mbëggeel leen ci yow li bay muñ ko sédé ci buntu yunus sallallahu alayhi wasallam kon ko ko gore la waaye anilta kulla gadwaaka si waa sha'nika barhaamu yow barhaamu maye nga sa lépp kan la may ñun la may de bàyyi lu am taalibe yi ñoo ko nga sa lépp nag ba mu des mi mooy fardu jaamiu bi moo tax ñi ñun ndaw ñi ñii di waxtaan ñii réeral si sëyru korek benn waaye di waxtaan wala sa man la wala keneen sama morom nañ def nank ci loolu benn mag yow nee toogee di waxtaan ci jotaay man dama ko seetaan mu métti ma ngay waxtaan jotaay xale bu ndaw toog di waxtaan sa kanam même bu defee xataa bàyyil ba mu jàll nga oo ko gàgganti ko na ko defal nangam defal nangam parce que dafay góorgóorlu man benn wax moo may euh, gunge chaque jour Pape Mahi Niass moo ko wax ndax mooy sama référence mooy lim ne nañ jéem même mënuñ sax nañ jéem léegi xale bi mënut xam-xam bi mu war a soxla pour waxtaan dajeegul ci moom mënagul woy téré mënagul dara wayé ne mu ngi jëm li bañé damay tëgg yonent bi ci xalima ak daxa gi mu mu ngi sapp lim am ci xalima xam-xamam diko wax diko waxtalé waxtaanee bàyyi juum na bàyyil ba génn nga jubbanti ko waaye mi wax ci de nga bàyyi xuddu nga ne ko du xuddu wayé khalifa la te bàyyi mo ne man buguma khalifa bàyyi ko wax man buguma khalifa soxlo mako khilafatu شيخ تيجاني خلافة لقاية ديان بان مبوغوكو مي خطبو لا لينا نيك سنة لمن خطبو لا سنة لباي خطبو لا تخو فوفو ولا من لا باي قطب فرد جامع لو تكيدون وقتان وحنا سلول وقتان بيني باي قطب لا مي اتاشيون قطب فرد جامع لا لولو جيخل نا واخ بو نيك دنج كوي غاغانتي فيل بادي قطب لا كي دم باش نيو لاختي نك مندي في مو توك فا با بري نيك فرد جامع mbir yëpp dagee ci ma ba pare mu wét ci maqaamam hmm. bàyyi bu nekk loolu lu muy doon ah kon nag bu nekkee kooku loolu la wax ba pare nga bëgg koo effacer loolu na ko ay xalifa la nangam buñ ñu buñ ñu buñ ñu ñu tànqal bëgg nangu ndaw ñi indi leen si beneen séeru bi nit ñi xamut nañ nañ nañ nañ moytandiku loolu ngir ndaw ñi gis nga bàyyi séeru bi mu naan séerul mag ñi leen kese la yegg nga ci yàlla kaay dox xaqatu Muhammad Ahmad Ibrahima ya te bu tollaan si Ibrahima da koy dox si daal yi moo koy moo la fay yeggale gisoo suufe gi mu suufe ba nangu laa doxal payam mu wàccee la naaw soot xamal la ne nag fii ngay liggéey lay jëriñ payale su paree nga dox sifa yi dox ismu yi siru yi ba siru ziyaara ñu taqali ko yow jeex na li des sa ittay bopp la séeru bi nañ ko tag fa mag ñi tegoon séeru bi ñu séeru loolu noonu ñun ndaw ñi nañ am fullaay fa bàyyi tegoon mag ñi la mag ñi doxoon ci bàyyi ngi dox ko ci muqaddam yi mu jeex yaa ngi dégg ba pare na nga am fullaay taxaw sa muqaddam liggéeyal ko jëlee ci moom barke Baay radiyallahu anhu waxu la na nga ànd na moom ba si seyru man nga xëy bàyyi ko de déedéet waaye saxal di koot na di ànd ak moom kon bu ñu kenn nax bàyyi nag mu ne itam وهل ألتقي فوق المقامات واصلا إلى الله متبوعا بنفس زكيتي وهل لي نجاة النفس ما نقول دين بالما بيتي بموسيدس من شر حاسد دين إلى حسد دين حساد عني لبغيتي لتحمى إني بيتي بي pour tejeko moy xiñaan dafa bari légui ñun waxu mag benn mag nag ngeen jéggal man moom man Ousmane Niass man du ma wax ak benn kilifa man sama moromi lay wax ak toujours wax gi yëpp ndaw ñaa ko moom. yaa ngi dégg ndax Baye danaa wax ne Oussa Baram Diop ñu ànd nañ tukki bàyyi ne ko bàyyil ma wax ak mag ñi nga wax ak ndaw ñi kon waxu Oustaz Baram Diop na mag bu ci jëriñu rek dangaa baax rek moo tax nga jëriñu ci waaye ndaw ñi la doon waxal te ma wax itam ku ci jëriñu rek danga baax rek waaye man ndaw ñi lay waxal